waaw foo dëkk. man Amadou Touré laa tudd. Amadou Touré maa ngi dëkk fii Waagu Ñaay. Waagu Ñaay. Waagu Ñaay de fii. Waagu Ñaay de Amadou lan moo la mën nga wax lan moo la yóbbu base ah sama yaay nee na ma damay tox yàmba quoi moo tax mu yóbbu ma foofu pour redressement. vous avez fait combien de temps là-bas. 23 mois laa fa def. 23 mois. waaw mooy ban mooy ban ban période nga fa dugg. 2019 laa ko dugg xam nga 2018. 2018 xamoo xamatoo sax kañ la. waaw gis nga. waaw te man ba ma ñëwee foofu yàmba ñu ma dem tere man ba ma ñëwee foofu doomu colonel bi moo ma ko dem jaay. doomu kool la moom doon jaay yamba ci. dama jaay benn lax si poone téeméer jaay paka yamba bi à 2000 francs. paka yamba 2000. 2000 te si biir 1000 francs lay jar poone juróom lay jar si biir. mu lay jaay pakatu poone. 500 laxasu poone 500. laxasu poone 500 li jar juróomi dërëm si biir 500 la ma koy jaayee. dama jaay paka yamba bi 1000 francs. paka yamba 2000. waaw lu ma fa nekk yow 23 mois chaque jour ma tox yamba tox poone. kenn daanaka la ma jàpp nag malheureusement. kenn mosu laa jàpp mais gis ñu fa jàpp loolu dóor. ñu leen dóor bu baax ba seen taat yi dagg. mos leen gis gis ñu fay ñu fay mos a évadé wala na fa bëri na ay évasion yu am sama kanam ay cinq évasion ba pare seize personnes dee nañu sama kanam. seize personnes seen seen tur a ngi nii ñoom ñëpp sama kanam lañ deewee ñoo ngi nii. seize personnes yooyu dee intéressé na ma de ana ñu. sama kanam lañ deewee ñoom ñëpp. sa kanam ñoom ñëpp laal sama kanam. mais seen i mbokk dañ leen jël si. dañuy ñëw paqueté leen jël yóbbu morgue ba sànni si morgue lii lépp sama xaram lañ demee seize da nga bind ko g dama ko bindoon xam ne lii mënut a ñàkk. waaw ndax fii la ñuy ñëw comme nañu leen brigade de recherche ngeen jëm nga xam ne suñu da leen solo. waaw waaw ñii ñëpp fa la ñu deewee. xaaral ma yëg dem négligence moo leen jàpp. dañuy dee fii xam a dem hôpital yóbbu di daw foofu te amuñu benn di neewi di dee nii. bu dee ñu jël dugal si seen oto pakete yóbbu benn morgue neexal élément bi sa ñëw. mais amul kenn ku ñu suul am na ñu ma wax ne dana am ñu suul foofu en face base. non loolu moom fekkewu ma ko mais ñëpp sama kanam la ñu am na ñoo xam ne ma presque huit at ba si buntu kër gi ñu dugal si oto yóbbu mais mënu ma wax fan lañ leen yóbbu. d' ñëpp ñoo ngi ñëpp sa kanam lañ deewee.